waaw kii moom day jël temps parce que liggéey loxo la liggéey machine waaw liggéey machine loxo moom day day jël temps ak taw machine loolu moo tax muy jël temps parce que ñu ko tàmbali semaine bi ba léegi réewu quoi ci laa nekk waaw Sénégal ko jël quoi par par am am jël par par par yóbbu mais ñu jot na tubaab ñoo koy jël tubaab yi di jaay temps yi mu gaaw du xaw a manqué quoi ba ñu ko jënd en général projet mu war a décembre saison bu bee ci lay gën a dox waaw mais pour actuellement nii vacances nekk xam nga ba saison nekk quoi mais dina xotaat tuuti mais saison boobu lay lay gën a dox xam nga mois de décembre janvier février ci lay tane quoi ci lay gën a dox organisation village boobu vraiment organiser parce que gars yëpp am nañ benn comité village bi nekk fii donc ñu ngi organiser ay ay ay manifestations yu mel noonu booy vraiment amuñu benn problème waaw nekk ñëpp ñu nekk benn ñëpp ñoo nekk benn relation bi vraiment booy daal jàmbaar lañu quoi ñu booy ñu ngi taxaw taxaw ñu xam ni même tuwaale bi sax dañ see taxaw taxaw problème ci côté yooyu di jëm lépp ñoo koy def vraiment booy am pas-pas lañu baax bois bi bois bi la ñuy liggéey bois de verre moom itamit nii mooy matière première te bois de verre sax actuellement day xaw a parce que bu tawee xam nga ok euh, gars yi war a jëlee euh, plante yi ci àll bi day am problème waaw gars yi sax dafa manqué moom waaw wala even bi even aussi moom si la ko ñu ko protéger quoi even moom doo gis waaw état bi da koy da koy tere quoi. waaw fii jaar Tambacounda lay jógee côté Tamba bi waaw. non moom taxu koo seet moom. loolu si pàcc yooyu rek ba ñu ba kilo la jël ñu jël kilo cent franc man dafa discuté waaw loolu la bi dañuy jàppale moom parce que Covid bi ba mu amee moom Macky Sall jàppale woon nañu quoi vraiment boo xam yàlla rek moom jàppale na artisan yi waaw parce que joxoon nañu cent cinquante mille amuñu laal amuñu laalu parce que tamit la li ñu koy joxee moom. li si wërsëg nekk moom bu soobee du nga doy doy moo parce nit ki bu moom moo yàq li lay jëriñ yaa koy liggéey xam nga li lay jëriñ ko jox moom aana doon nañu quoi waaw ba mu jox cent cinquante mille dëgg yàlla te doon na ko boo xam dafa métti woon trop mu toog ñu ko waaw kon nag vraiment ñu koy gërëm di ko sant yi sonn nañu fu ñu jàppale waaw parce que xale bu jàngul français ngay muñ ñëw artisan ngay ñëw kon artisan boobu dañ ko war a jàppale mais ko doole xam nga moo gën parce que booy ñu gis ñu ñuy dem ci gaal yi ci kalankal yëpp rek mais bu ñu ñëwee artisan yi teel doole de ku la ñëw du ñëw xam nga il mu ñaan ci li ngay liggéey mu mu mu xam nga mu mu mu mën a ñëw booy mën a ñëw mais bu ñu la ñëw tamit dara naan fi dara nekkul quoi mais